Aziz Fo laga cosaan a cuka kilifa leneen li ma ci teg cent pour cent bi dimbale leen ñu ngir yàlla ak yonante bi ngeen jéem a nekk benn polémique yi bari na ñun dañuy teewlu ay vocal man damay déglu mais polémique yi dafa bari de gauche à droite pour cent bi jàppale na kii jàppalewul kii gisuma mu jàppale kenn gis naa mu jàppale kenn yooyu yëpp jaru ko li fi nekk moom mooy liggéey nañu jóg liggéey surtout 100 cent bi yéen ñi nga xamante ne yéen a ŋànk affaire bi jóg leen ngeen dem liggéey dès maintenant parce que mbër yi bari nañ mbër dañoo bari de ñii ñëpp ay mbër lañ te dañuy toog semaine gars yi ay 5 combats am ci 100 pour cent bi doo xam kan ngay jàppale ak kan nga bàyyi finalement da ngay croiser les te loolu du yoon loolu du yoon 100 cent bi buñ man bokk naa ci ñi nga xamante ne ñoo ko njëkk a initié booy say ma bàyyi ma fenn. am na ñeneen am na keneen ak keneen ku ma àndal ci Assane Diallo bi ñu fi tudd turam sànq ba ñuy doo njëkka def 100 pour cent bi ñun ñoo dem ba ci biroom am mu yëkkati benn 100000 francs jox ñu ko su ma juumul def na un naa ci ginnaaw parce que ci début Covid 19 bi la xaalis bañ fa amoon dañ koo teg fii jënd ko ay matériel ay gel septique affaire yooyu yëpp ay saabu ay omo indi ko ci hôpital bi jox ko médecin chef bi mu seddale ko jaamu yàlla yi kon bokk naa ci ñi ko initié xëy na nag comme il fallait que woon ma dem ci ginnaaw bàyyi encadreur yi ñu encadré damaa nekk mbër comme yéen léegi nag leneen li ci des bàyyi nañ ko ak acteurs yi acteurs yi nañ doxal bu ñuy doxalit nañ ko teg ci dëgg ñoom ñëpp nañu jéem a nekkee benn wax fii bu ëllëgee nga wàcc suuf di wax ak keefee di wax ak keefee ça ne se fait pas loolu du doxal dara am na lu fi jotal a romb romb na rafetal leen ko yéen ñëpp su ngeen nekkee benn barke yonent yàlla moom it lépp lu ngeen bëgg rek di ngeen ko am mais su fekkee ne confusion def ñii di xëcc jaar nii ñii di xëcc jaar nii dara du sotti wala kii di wax kii bàyyi kii te kii bokk ci loolu du yoon nañuy de xàccendoo di dóorandoo ñëpp nekk benn ñuy wax benn di ko def mbër bu fi xewle mbër yi fi nekk nii dañoo bari car macha allah il faut ngeen liggéey pour ngeen mën a satisfaire mbër yi su ngeen liggéeyul du ngeen satisfaire benn mbër affaire bi ci ay wax lay yem. parce que dégg naa fi ñu ne dañuy jël xaalisu 100 pour cent bi di dem biir doro ba encadre encadrement bi di di ko noncé dégg naa ko ci ci ci groupe bi ñu koy wax au lieu ñu dimbale mbër yi dimbale wuñu mbër dañuy dem feenee di réunion di lekk seen ginaar di noos man sama kër ginaar laay lekk car macha allah lu ma neex laay lekk ñii bu ñu lekk fii nii ay je ne sais pas quoi ñoom ñoo xam même loolu du ma ko wax duma ko wax même su ma ko xamee duma ko li nekk yoon moom mooy kene yéen ngeen jàppale mbër yi taxaw mën a am fond bu dëgër mbër bu xewle waxuñu nga jël xaalis jox ko mbër demal indil ko ay kaar jëndal ko bloc yi booy booy yu ndaw yi dañ leen di jox ay bloc ngeen dem jël bloc bi ci loxoom 100 pour cent bi engagé wu loolu loué ay kaar loolu doy na ci jàppale nit mais fekk liggéeyoo leen ay wax kese xaalis du am du ngeen jàppale benn mbër ñëw teew nag yomb na teew ci combat booy bi booy bi gis la loolu moom yomb na mais jàppale mbër bi dafa war a am comme 100 pour cent moo am te jàppale yi moo tax mu jóg li ngeen am ak li ngeen jotul am fexe leen ngeen uti ay fonds yu dëgër ay kilifa ñu jàpp leen ngeen teg xaalis bi sur ngeen seet yan façon yan méthode ngeen di jàppale mbëri ku am komba mu sentir leen ci biir kombaam loolu moom mooy dëgg liggéey dem liggéey encore dem liggéey di organiser ay yeneen ay yeneen ay yeneen yoo xamante ne day am day jur ay revenu gars yi di liggéey di am xaalis di dugal ci kees bi mais su fekkee da ngeen bëgg a yaakaar ci nit ñi pour ñu may leen kese di ngeen sonn il faut ngeen nangoo liggéey ngeen liggéey mu am ay revenu ngeen dugal ko seen kees loolu moom mooy mbooloo te mbooloo boo bëggee jóg pour jàppale mbooloo il faut nga liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen baal ma am nga droit wax ci biir mbooloo mi ne wax naa ak moom mais deful li ma wax ngir yàlla li lay war a suuli bu kenn jàpp nañ dañuy ñëw di xuloo wala ñuy xeex sept ans lañ ñun yor nañ écrit seize ans kenn dégguñu ñu wax lu ñaaw kenn te duñ ko mas a def Sénégal nag làmb dañ ko tàmmalu yàlwaan ba saa yoo waxee dëgg ñu ne da tàng demul noonu dañoo laaj situation ba sonn amuñu ko ñu taxaw ñu laaj ñu ñu ne ñun de kenn situation ñu lii tontu bi mooy ku fi sa écrit jot situation taxawal ne mut booy waxoo dëgg situation nañ mën loolu may wax ji bi mooy beneen question bi mooy 100 pour cent waxul mbër moo la jox ay carte man sama écrit maa la jox ay carte ni toog te 100 pour cent laa bokk ñu ngi ni toog ku fi am combat carte bi la yóbbu signature contrat maa koy joxe ku fi am combat carte bi nga ne nii moo làmb ja la sa maa maa koy joxe beneen mbër bu am combat na la sa écrit defal loolu 100 pour cent newul benn mbër moo la jox carte loolu daf mun nekk xam ngeen combat bu nekk vingt mille trente combat yi ñaata la vingt mille divisé par trente ñaata la ban ban association mooy def cent ban cent pour cent mooy jëlal mbër bu la am combat combat kon bu ñu jaxas ak suñu ay mbër loolu du question xam nga luy wax ji ndax cent pour cent ba seen mbëri équipe yi ñu ngi bëri wala déet làmb ju am weekend bu am ñaari mbëru Kër Massar dina bëri wala ñett démb laa gisagum combat bu am mbëru Kër Massar bëriwu ci démb démb ci benn làmb bi am yëpp nag laa wax moo xam bari na la waaw du dégg dégg kon ñi ngeen ngi yow yaa ngi may gis sag laam ma ñëw andi mbër mu bëre ndax mbëru Kër Masar yi xam nañu règlement wala ñu ngi leen di sanctionné wala déet loolu la 100 pour cent junj danoo yuuxu pour anticipation encore une fois looloo tax ñu yuuxu mais yuuxuñ pour naan mbër bu am combat dañ laa war a utal ay jaar say biir man diggaw ma benn mbër dina jaar say biir ah. mbër bu am combat nag wax ma ko su ma amee temps dinaa dinaa dem dagg biir dinaa la conseil ak yow mais ñun dëkkuñu autorité Kër Masar. on est des responsables des écoles et des écuries mais pas de commune premier magistrat la ville moom mooy ndeyu réew moom la ñuy voter suñu xaalis moom moo am droit laaj ay tuuti moo am droit laaj ay taxi moo am droit romb benn enseigne bu taxaw mu ne ko da ngay fay kooku ma war a soutenir état wu Sénégal day voter benn budget boo xam ne pour social la culture lay jaar cinq millions par année mooy budget wu Kër Massar moom Moustapha Mbengue moo ñu ko waxoon ne ma nekkee maire dinaa subventionné boobu ba defu ko loolu lañ ko laaj kon kenn nga fi nekk Brioche Dorée bu ñu fi ñëwee suñu cotisation lañ benn mbër joxe gu bëgg taxaw ne kon mbër yi dañ leen war a jox fay seen i carte loolu du question dañoo yor suñu ay ñu am situation situation du pour jox ay nit ay carte mais écrit bu nekk war na mën a am ay gants jóge ci monsieur le maire combat bu am important bu am war nañoo mën a dem bu yëkkati ñetti car wala ñeenti car ne maa ko jàppalee mbër mi loolu la ñuy wax combat booy bii kii nii woo naa ko téléphone ñaanal ko mu am ndam combat gis nañ ni mu demee mat si nii la mais ñun meruñu ci combat booy bii dañu doog lijjanti ba xam nu mu demee am na fi ay mbir bëri mais buñ ne 100 pour cent bi dafa war a nekk fii ku am combat mu fan lañ jëlee budget boobu kan mënu ko jox dañ leen laaj ay cotisation bu fi kenn taxaw di wax ne Modou Boy wala 100 pour cent bi jàppaluñ kenn dañuy war di wax Brioche Dorée bi saa bi ñëwee 30 000 lañ fi ñàkk ñooy génn suñuy gafaka joxe ko laaj ñu benn mbër cotisation suñuy cotisation suñu keesu écrit la yam mbër bu am combat Kër Massar dox dem na nañu ko wax non il faut que ñu bañ a polémique affaire yi dafa mbeng suñu meer la nee naa man ak moom ñoo bokk benn parti man ci ñu ànd moom campagne ba mu gagné te bii paa moom laay voté man APR la mais loolu man la concerné mais concerné wu 100 pour cent bi mais bu fi nekkee maire moom man am naa droit moom defalu ma lii te loolu dafa ma war li ma koy laaj ñaanuma ko encore une fois du ma ko ci neexal tey du ma ko ci neexal ëllëg subvention bu ko defee baax na su ko deful baax na am na ñu fi ñëw léegi muy waa kër aso jaata yi yëguñu leen woowuñu leen pour ñëw fi ñoo doxal seen bopp ñëw fi ñun politique taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy jàppale suñu ay mbër xeex ak ñoom ba jot subvention loolu tax ñuy xeex maa ngi jégalu nag ci wax ji mais dama bañ ñu foog ne ñun dañoo contre maire wala dañoo pour dal ci kawam wala am ñu nekk suñu ginnaaw non mbër yi ñoo nekk suñu ginnaaw mbër yi fi nekk di waxal monsieur le yëpp lekk nañu xaalisam ñoom par individuellement kon am nañu droit dal ci kaw mais man Modou Boye am naa droit la joxuma fukki dërëm te sama écurie mi ngi dox kon su ma duggee ci 100 pour cent bi di xeex ay wax nag boo ko waxee ba pare da ngay toog déglu ni la mais doo wax pare jóg dem 100 pour cent Kër Massar dafa jox monsieur le maire respect depuis 2016 ñu ngi koy laaj ay situation joxuñu ko maa ngi jégalu question bu gudd demee noonu laa ko mun tontoo parce que ngeen laajee kon public la ñuy waxee wax day am tontu. 3S4 laga cosaan a cuka njogoy na fañi go xaango Aliou